vision Macky 535 di kuréel gu judd ci biir réew mi dajale ay responsable yu bëgg seen réew bëgg njiitu réew mi di le président Macky Sall taxaw temm ngir jàppale ko bu baax la waral nag ñu bëgg a jàppale njiitu réew mi président Macky Sall mooy président la boo xamante ni liggéeykat la bu kenn dootu nattable rax ca doole di ko bëgg réewam di jëmm joo xam ne ay yiteem yépp mooy Sénégal nekk ca kanam ba bu ñuy tudd dëkku Afrique yi Sénégal la ñuy jiital. président mu liggéey lu mucc ayib ci réew mi lu yaakaar naa beneen président mu su fee def waaye ñu gis ne à chaque fois dafa am foo xamante ne fa la doon sooxe muy ci wàllu communication ak fësal li nga xamante ne moom la liggéey bu population war ko jël li ñu naan approprié ko donc en 2019 yàlla dogal na macha allah sant yàlla il a été réélu falaat nañ ko waaye nag ba ñu jógee ci loolu cadre yi taxaw def benn euh, li ñuy wax forum boo xamante ne dañ doon saytuwaat li nga xamante moo doon. Euh, liggéeyu euh, gouvernement ba ak président wak yooyu yëpp ci biir forum boobu la ñu sentir ñun président Macky Sall def en cri du cœur maanaam dafa wax ne que ne dafay jot yenn saay ñi nga xamante ne mooy ay moom parce que moom c' est le général ah c' est général dafay baax yenn saa yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw maanaam taxawee en tant que armée ñun ak ñeneen ak ñeneen ñu war a mën di fësal ak di wax ci li nga xamante ne moom la liggéey ba su euh, élection comme lu mel ne li ñu jëm muy législative jotee du soxla ñu ciy ñëwaat parce que population daañu xam effectivement li nga xamante ne mooy gëddëm. fépp foo xam ne secteur d'activité la rek ñoom waa vision Macky 535 jàpp nañu ne président liggéey na fa liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam ne nii jot na askanu Sénégal yépp teg ci seen bët te ñoom loolee sax moo leen yëkkati ngir ñu siiwal ko ba ñépp mën a xam ana fan la président teg tànkam ak mbëggeel gi xam ne bëgg na ko réewam. waaw 535 loolu euh, mooy li may wax. loolu président Macky Sall liggéeyal ëllëg bi moom ci loolu la sukkandiku pour fas yéene incha allahu rabbi wàll bu ne ak pàcc bu ne boo xamante ne maanaam muy santé muy muy éducation muy euh, social muy euh, wàllum transport muy amul fépp foo xamante ne war na mën a tax gouvernement ak état dox ci ni mu war a doxee rek moom am na ca. projet bu mucc ayib ah ay projet yu mucc ayib ak doxalin bu am solo boo xamante ne tëral na ko pour incha allahu rabi ñu xam ne Sénégal day jëm ca kanam bokk ci pays émergent maanaam ci pays yi nga xamante ne macha allah ku ñëw di nga ñu ñee ci bépp wal nag. ku xam bile kuréel nag. xam kuréel gu mën social loolee sax. bokk na ci seen activité yi nu gën a sawar ndax jàpp nañu ne ku bëgg jàppale son excellence monsieur le président de la république Macky Sall faawu nga yéwén ci askan wi ndax coono bi nga xam ne président mu ngi koy daj yépp ci réew mi askan wi képp ko waral. kii di œuvre social di ñu di ko def ci sutura comme am na boo xam ne gu ngeen yéen ci léegi te bëgguñ cee wax. duñ ci wax mais jàppale ne rek ne vision Macky 535 day dox lu bëri ci dimbali ndongo daara yi day dox ci dimbali euh, le y le un volet scolaire maanaam ñi nga xam dañuy jàng te amuñu ay moyens pour am bourse ñuy fexe jàppale leen ñi nga xamante ne tamit dañoo am liggéey ci xëyu ndaw yi ndax président li ñuy wax employabilité ñun dañ ciy dañ ciy yëngu lu bëree bëri pour bëgg incha allah bi jàppale président pour li nga xamante ne moom la ñuy wax ne ndaw yi bëri amuñu liggéey wala liggéeyuñu ndax nag ñëpp mënuñoo liggéey ndax ñëpp dañuy am diplôme mais duñu xam lan mooy euh, yan xeetu liggéey lañu ñu war a am pour diplôme yooyu ñu mettre ko en valeur donc li naan employabilité ñun fas yéene nañ ci dox ay jéego yu mat incha allahu rabbi et puis nag foo xamante ne rek war nañ faa dugal suñu tànk fas yéene nañ ko fa dugal pour incha allahu rabbi ci benn wàll wi ñu jàppale ci ki nga xamante ne mooy suñu leader ah mooy leader président Cyril mooy leader président euh, secrétaire général Abibatou Awa Cheikh mooy suñu leader ñun tous les présidents que le Sénégal n'ait jamais eu. ñoom waa vision Macky 535 nag seen yéene du toog rek di wax ay milliards yi nga xam ne président mu ngi koy lijjanti di ko dugal ci biir réew mi waaye mooy xamal réew mi am na nan la liggéeyu njiitu réew mi di impacté ci sénégalais yi maanaam njariñ li nga xam ne président de la république làmboo na ko jëmale ko ci askan wi. du ci wàllu ay milliards waaye ci ni muy impacté ci vie wu yi parce que sénégalais tey boo jëlee rek Ila Touba. murit kuy murit xam nga ne tey boo amee sa néew boo amee sa soxla boo amee sa loo bëgg da dem Touba aller retour ci ay waxtu ci ay simil te bu njëkk kenn mënu ko woon tey loolu mën nañ ko loolu c'est grâce au président Macky Sall te mën nañ ci cité cité cité donc looloo tax ñun ñu jël vision Macky 535 pour fësal ko pour wane ni mu ni mu ni muy oyofalee dundinu doomu aadama yi maanaam sénégalais yi. bile kuréel di vision Macky 535 nag ci njiital soxna Aïda Ndiaye nekk na kuréel goo xam ne. dafa tënk ay góor ak i jigéen ñu am jom lool nangoo liggéey lool bëgg seen réew lool bëgg kii di son excellence monsieur le président de la république fas yéene koo jàppale bu baax a baax a baax rawatina ci élection législative yi ñu dëgmal ñoom waa vision Macky 535 jàpp ne nag jot na ngir ñu laxasaayu takk seen ndigg fexe ba le président de la république Macky sàll nekk majoritaire à l'Assemblée nationale te loolu bu ñu ko diggee président bu yeboo xelam dal ndax fépp foo xamante ne nii mën nañ faa taxaw fësal liggéeyu njiitu réew mi rek pare nañ pour def ko te ragaluñu ci dara. waaw li may wax rek sama mbokk jigéen ñi boo xoolee ñun vision jigéen ñi ci ëpp dafa jot jigéen ñi tàmm nañ di wane seen jigéen ñi bi yoon gëm naa ne bu président amee ndam jigéen ñee tax du ñu mu fal dafa am ñoo xam ne amuñu benn ndombal tànk waaye dara ñorul leen ku président Macky Sall dara ñorul leen ku askan wi dara ñorul ween ku dul saafara jàngoro doomu aadama yi. te suñu naan saafara mooy ku ku ku gëmmul ku gumbawul nangu ne réew mi métti na nag métti na euh, jafe-jafe yi bëri na waaye président euh, dara ñoru ko ku dul askan wi dafa fekk ne nag mënul nekk fépp mënul nekk fu ne jël na ay nit jox leen ay budget jox leen ndombal tànk ne leen ñu liggéey xëy na ñooñu ñoo sooxee vision nag fas yéene jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi biir vision ak góor ñi kilifa yi nekk biir vision euh, fas ni incha allahu rabbi taxawu président ba incha allahu rabbi ñu jox ko une majorité écrasante incha allahu rabi euh, lors des prochaines législatives incha allahu rabi